nekul député nekul ministre mom bu fi dàmbooj toogoon ni mi lambar lambar dem ci marchand ambulant dem ci yenen secteur d' yo yoo ay sénégalais ñoo xam ne am mais mom ban mandat la ci am en fait ban mandat la buggaan mi am ba dem di tok di waxtaan ak sénégalais et puis bu waxtaanee ak ñom fan la koy jëmee wala mom dafa nekk di liggéey président Macky Sall benen question tay tey jii euh, est ce que da nga toog Macky Sall lu mu def noonu lañ koy Macky Sall def na fi investiture am le 1er décembre 2019 2018 nga def sa investiture le 1er décembre 2018 démb mu def conseil national ci jeunesse am tey nga wëlbatiku ni da ngay def sa conseil national ci jeunesse bugaan bu ñu la falee président tamit nga wax ñuko man yo loolu yëgu ma ko dañ ko fee fal président wala dafa nek député du peuple. dina la tontu dina la kon sa sa question yi en quelque sorte alors. jërëjëf jërëjëf Pape Matar xam nga euh, comme c'est un éternel indigné donc euh, je crois qu'il est dans son rôle. maa ngi lay euh, sant ci question yi euh, xam nga. <laughs>